yaa booy mbërëg bi waaw tàmb jang def ci ak laña laña waaw <laughs> léegi la ñu jël seen yéet yéet dugal ko ci lan nga wax di nga a jaañ boo ràccee ba nga daj daj yéet <laughs> waaw <laughs> boo ko saxee boo ko sàkkar na kee boo sàkkar ma ko san san san ñabbax mi waaw ba tey de d'accord waaw waxu góobi diwtiir di diwtiir du si bokk de diwtiir gi déggul ma la damaa wax seen pareegu ma waaw waaw waaw waaw di nga diwtiir gi bu fekkee da nga jënd jëmmi wala nga jënd walaat waaw bo toge suufu kànja bi bam ñor. waaw nga tegg ko teg ko ci tegg wax bi. waaw da ngay bu dee walaat la da nga da ngay da ngay jël genn wala walaat bi sotti ko suufu kànja bi jël bakku bi yëngal. waay déet waay déet waay bàyyi bàll dimbali waay. bay bal bay bal ya bàyyi bàll waaw bo jëlé bakku bi yëngal ko. waaw ba mu jaxasoo maafe mi nga bay genn wala walaat bi akoré côté. waaw waaw luy bakku luy bakku mom jël ñangata ngi bakku bakku benn bant la bo xamné ni ha bant lay doon wa ya, bant lay doon bo xam ni dafa am dafa am saaru ci lamañ eh, ni ngoy wala lamañ dañ koy yek <laughs> law na <laughs> ñoo ko daan yettu waaw nga xam ni mom lañ daan ruxujee léegi nag faa gi lepp ci waar lañ ko defé waaw waaw waaw bakk ko laa yëngal waaw moo ko daan yëngal mo taxit mo taxit xanaa ko mo ne bakku waaw <laughs> mo gën ci war déet déet way déet boko yëngaté dafa am cafkaat bopom di nga togg mat ak nu mu gënee toggam gaas. ndéem la waaw waaw. noonu la noonu la bokk gënee ci waat. waaw yëngal yëngal nga ne nga jël diwtiir gi def ko eh, waaw. waaw boo yëngalee mu des genn wàll walaat. waaw. nga jël maam mi yekk ci bool boolo boolo borom kër gi. waaw. ñàngata ah, maa palaat nga wala bool nga ko yekk wala si palaat. waaw man ñu daa amuñu palaat bool bool. ah suppu kañ si bool la dàqee waaw. bu nga boo jëlee ñàngata nga yekk ko ci bool. waaw. nga jël wattu ji riñ maafe kii ak mi ba mu jaxasoo waaw léegi nga yëgëri wattu ji laal ko ci maafe mi waaw <laughs> boo ko ci laalee nag nga raata raata ko ci kaw ak mi bu ko defee wala loolu mu si jëri nga gis mel mu mel ni lu kole ci jaay waaw waaw waaw mooy waral boo sottee maafe bi du yoll du dugg ci biir du dem ci ron da ngay gis mu taa noonu nga xam ne boo koy ràcc <laughs> léegi nag boo ko waaw nga jël maam mi nag sax. waaw jël diwtiir gi nag wëral la ci nag. déet déet diwtiir nga waxaat. waaw wëral la ci wëral la ci ci pegg ci ron yi. ba pare def ci digg bi jaxase ba mu normal. mu mel ni fa am kaala daal kaala su dox waaw. nga nga nga nga xuub yóbbu yóbbu ba. waaw. boo demee teg ci ron mango gi ji nga loolu bi nga ko ubbee. waaw. <laughs> parce que sama bàyyi ni jël wantaay gi da upp na naan faaf. faaf faaf. léegi nag ma ne ko bàyyi ràccal ma. <laughs> waaye kaana kañ moom kenn du ko si def du am kaana kañ moom. Ah, xanaa kañ sama rakk ji ba mu fi jëlee joxatu bi sax ko moom it. waaw. Eh, laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah. mbaa fekkul mu tàng. maam na mu bu rek jël joxatu bi sax ko. waaw. mooy mooy ku mu doon waat si mbëtt bi. waaw waaw ko ci lekk. waaw mu sax ko rek affaire bi tax ci ñaar na ñaar na. waaw. mu nga kulli bët yëm na. góor gi jël loxo bi rek sama loxo loxo bi rek dugal ci biir rakat mu génn mo am nak mo am nag yuute rek rakki de ko yal be wala ko bo wañu lek mi ngay lek le nga de lek ni ko ndekla de de ni ko ndekla de bay bay bay lay su ko ñu dem dem daan yow ren fa mel de mu jodam Touba kon dem Touba fi la magale wa ah, fi nga muju magale foofu nga magale fi la magale way magal gu mo am nak yaakaar na watu way am ah am ngeen dawal gu bax gu jaar yoon ciebu ciebu yap comme ni ko waxoon yap ciebu xaw ma ko waxee woon yàpp ceeb waaw. man kanaara ak ganaar laa boole. déet déet bay balla kanaara. ak ganaar. moom nga def. moom laa def. déet bay balla loolu lu de boole. boo ko nga kanaara ganaar. man ma di wax ne kanaara neex wala ku koy togg moo mënta togg. kanaara daal képp koo gis mu naan la neexu yàpp bu ko yàqa nag. déet fa am ndawal. xëpp na yow maal maal. waaw waaw maal. moom laa tuddee daan bi piif. waaye léegi rek euh, boole cere nga ko boole wala moom nga ko boole. xam dafa am toggin. waaw waaw waaw moom loo boole ba mu ñoree ba mu ko boole. karaara boobu suqee ba mu set. waaw. da nga koy raxasee xorom ba set rek. waaw. après nga soog koy togg. te boo koy togg doo ko lakk ba mu wow. da koy diigal. waaw diigal. waaw boo boo waaw boo tegee sa diw bi rëb yi soble yooyu indi bi waaw fekk raxal nga kanaara yi ba mu sotti da koy diigal. diigal waaw. <laughs> boo ko diigalee rek nga xam boo xam dara xupp. boo demee ba nga xam ne ni mu ngay poj poj nga jël cumaat bi kiis boo kiisee nga teg sa loxo bi ci lupp bi bës. waaw <laughs> su bënnee nga seet sóor ceeb bi. yow ko boole doon li ngeen ko boole doon ceeb ngeen ko boole doon wala wala yaasa. non ganaar bi añ nañ ko def moo xanaar waaw. reer bi ñu togg soos. est ce que loolu dana ak ci nga boole ko añ loolu dana ceeb bi. bisimilah. te kanaara nag daa rek. di nga maal ndaw bi moo dàq bu mag bi rek. biir waaye dàmb piis bi. maal bu mag bi bu mag bi dàmb piis bi. bu bi moo ko dàq. waaw six yar yi six yar bi mooy six moo dàq moom laafa yi moom. laafa yi moom jar na bu Baye Balla baax na doy na dëkk wax dëgg yàlla suur naa kër <laughs> waaw laafi laafi ci yar yi xanaa xanaa xanaa bool bu xool ngeen ko yekkoon wala si palaan ngeen ko yekkoon bool bu xool nañ ko yekkoon waaw da nga waroon woo sa nijaay ne fekkee damu da nga waroon woo sa nijaay moom la bokk ni ah maa ko bokk moom maa ko wutoon añ te dañoo lekk ba mu des weer bi ñu lekk ba mu des ndëkk li ñu lekk ba mu des. ah yow yow ma ma yàlla yàlla nangu màggam yow màggam nga bàyyi bàyyi bàyyi màggam nit ñëpp kenn nekku fi di déedéet kenn nekku fi kay ñëpp def ñëpp dem nañ man koñ bi man lañ danoon man lañ <laughs> rendi màggam bi wax dëgg yàlla bàyyi bàyyi baax na yàlla yàlla sëtal tool yi amiin amiin amiin amiin yaa booy mbërëg waaw tàmb jang def ci ak laña laña waaw léegi la ñu jël seen yéet yéet dugal ko ci lan nga wax. di nga caa jaañ boo ràccee ba nga daj daj wi waaw. <laughs> boo ko joxee boo ko sàkkar ma kee boo sàkkar ma ko san san san ñàbbax mi. waaw ba tey de d'accord waaye waxu góob diwtiir di diwtiir du si bokk de. diwtiir gi déggul mu la damaa yor si pareegu ma. waaw waaw waaw waaw.